Eliman Ndiaye. Mhm. li est-ce que xam nga li dal Diao Balde. Mhm. te loolu Aliou Cissé maa ngi laa nuyu bu baax mais di nga ma baal mais it faw ma wax ko. dëkk mhm. dëkk la Diao Balde. yéen a ngi fàttaliku Diao Balde premier match bi muy door a ñëw Sénégal stade bi yëpp ñu ngi toog ci loge bi stade bi yëpp di yuux naan na dugg na dugg na dugg Aliou taxaw fi mu taxaw rek mujj gi nit ñi di yuuxu Aliou pour mu dugal Diao Balde ce sont des faits. et j'ai mais Aliou xanaa comprendre lu ni waa ji c'est un grand footballeur après ma ne bon lan moo war a nekk ci xelu Aliou ba mu war a mën a bàyyi ba quelques minutes de la fin muy door a dugal Diao Baldé et sur deux touchés de balle le gars a ému le le stade ce jour la mais lan moo tax après Diao Baldé loolu mu nekkoon continué wu parce qu'on l'a pas bien traité gis nit nit bu ko yàlla defalee dara da nga dooleel mais bu ñëwee nga nuyu ko catu baaraam. taxawal ko ne teg ko ne wan ko ne ko man maay décider. Mhm. à un moment donné je sais pas je dis pas que Aliou loolu la def mais l'impression qui est donnée c'est ça et quand je regarde. Ouais. moi qui défendais super méga terra fort Aliou Cissé pour ñu jox ko équipe nationale ñi nga xam ni xam nañ li ma daan bind xam nañ li may wax. il a l'air très autoritaire. après l'impression mooy ah ci que dafa mel ni tout se résume à lui et que donc euh, euh, il faut pas ñu tàccu la il faut pas ñu tàccu keneen et dans son discours on entend quoi euh, oui euh, c'est l'équipe c'est l'équipe qui marque qui gagne tu as l'impression que le gars ne veut pas qu'on dise diw la et pourtant on dit Aliou Cissé la. Mhm. moo tax équipe bi gagné équipe bu gagné c'est Aliou bu pété c'est Aliou mais. coaching gagnant. sur Diao Baldé sur Sylvain Ndiaye euh, xaw ma dégg ma naan Sylvain Sylvain dafa niroog Elimane Ndiaye. dafa ni ñu niroog un excellent <laughs> footballeur Sylvain Ndiaye. dommage mhm. que malheureusement. Iliman Ndiaye Diao Baldé mais c'est de mais de grands footballeurs mais mais on les met pas dans l'escarcelle du cest dire ce cosmos là qui te permet de t'éclater comment fi may waxe Alaaji Diouf bi mu ñëwee en 2000 son premier match c'était contre Égypte gandam match 0-0 amitié mhm. avec le sponsor Alizé bii orange tey xam nga orange 2006 la jógee Alizé nekk orange mais mais ngaa la nabu ko. oui. Alaaji Diouf dafa ñëw ñu gis talaam won ko ne yow la bàyyi ka Fadiga la même chose que équipe bi éclaté wu ñu exprimé wu mais quand vous venez dans un environnement gendé léeg-léeg bu ma waxee ñu ne ma woy mais Aliou jël na coupe Aliou jël na coupe dëgg la. bi ko Cheikh Tidiane Gomis di critiquer on n'était pas d'accord avec Gomis ci ci benn moment mais Gomis a eu raison je désolé quand bien même jël nañu Coupe d'Afrique jël nañ ko oui face à la Grande Égypte mm-hmm. yàlla dogal série de penalty ñu am un but à zéro par le penalty raté de Sadio Mané on a failli perdre la finale yàlla def ci sutura mais nan la Sénégal footballé premier tour ak deuxième tour. ko ñetti match yoo xam ne mënoo dugal but. takalaatu. dernier match ba pour nga génn il a fallu nga nul mais nul ba ca arrêt de jeu Kalidou Koulibaly dafa faute bal bi Sénégal Burundi wen fàttali ko Sénégal yëpp tiit arbitre bi gëmm la gëmmuloo arbitre bi kenn xamu ko loolu leneen la mbiru yàlla yàlla dafay jaarale ay mbiram fa neex ñu dem deuxième tour. sénégalais yi gis beneen équipe nga dóor Cap Vert dóor Équateur dóor Burkina Faso affaire bi neex. nekk bombe. bombe nga gagné coupe. Mhm. mais on a failli ne pas faire une bonne CAN yàlla def sutura te dans le jeu dans le jeu Sénégal football na gagné na mais stratégiquement ñi xam football dëgg am na leneen lu ñu doon bëgg mais yàlla noonu la ko dogalee le parcours que l'Égypte a fait. dóor Cameroun dóor Côte d'Ivoire dóor xawma kan ak kan pour agsi final ci contexte boobu amaana bu doon Sénégal dana métti de. Mhm. parce que notre parcours a été plus facile que bésu Égypte ca final ba foofu la noo waxee cela n'enlève en rien au super méga terra grand mérite de Aliou Cissé moo fi def lu kenn deful ci entraîneur moo jël yóbbu ñu demi finale 2017 Coupe d'Afrique te 2015 la ñëw. Mhm. yóbbu ñu finale jël ko 2022 yóbbu ñu coupe du monde 2018. Mhm. yóbbu ñu coupe du monde 2022 mais limite. il a du mérite nit ça c'est vrai au-delà du mérite nit limite. Mhm. Bill Clinton ba muy wàcc Amérique c'était l'un des meilleurs présidents Barack Obama keneen ak keneen saa limite taaw da ngay dégg sax ñuy naan waa président Sall booy xam nga mu ngi liggéey nañ ko mayaat wàllu noo maye te yoon ne fi. mais nag Pa gis nga. limite boo jëlee coupe d'Afrique dem qualification coupe du monde jàll dem coupe du monde def li ngay def ba pare ñëw. tu as atteint tes objectifs quand même il faut savoir lâcher prise nga dem feneen xoolaat yeneen lan lan nga mën a defaat yeneen yeneen challenge yoo mën a relever mais pas rester ci même point bi naan non damay essayer dinaa buuxaat ñu gën a puusaat soxlaatuñu loolu te équipe bi dafa soxla ñu rafraîchir ko. xam nga il faut que les titulaires se valent soxlaatuñu euh, yow yaa fi yàgg yow yaay te te loolu noonu ancienneté bi muy joué noonu ça pèse ça pèse lourd sur l'équipe am na des jeunes yoo xamante ne ñu ngi ils sont sur le banc ils peuvent vraiment donner ou apporter quelque chose à cette équipe mais man je peux pas comprendre nga nga nga convoquer des joueurs yoo xam ne tu les laisses sur le banc pendant toute une coupe d'Afrique ils n'ont pas joué même un seul match loo leen di doy tu les amènes à la coupe du monde joué wuñu sax benn seconde loo leen di doy les amener pourquoi pendant ce temps am na yeneen joueurs yoo xamante ne ñu ngi cartonné di toj feneen te sénégalais démb euh, tonton Moutaga ñu ngi lay nuyu bu baax mu ngi koy wax nee na on a un problème de jeu amuñu jeu effectivement bàyyee ñu bal ngaa la xool duñ def dara. lu bu ñu wéyee nañ laaj. Harry Kane ni ak graw mhm. bàyyee ñu bal xool. Mhm. <laughs> Sénégal. Euh, duñ ju duñ joué duñ dugal. ngaa soo benn xarit mu may message naan ma yow booy kañ nga xam football. da eh. yow dinaa la tontu xam xam xama lan la ma kaa tontu dama kaa tontu yow bi may xam yàggut moo tax yàggut mais ngaa la. Mhm. am na loo xam ne soxla nga xam football. ayo mbay anta préparer ma élément bi sam di jo di jongale foofu noonu ci stade bi mbëkk ba teg dënnu noonu di jongale di di mbay dimbali ma waay mbay waaye yow ma tontul ko xaritam bi dama ne. xeex bi ma def ko sama xeex ab bopp. wallaay wallaay ko da war nga kaa mën a tontu. waaw mën naa ko tontu. yow yow yow yow ñun ñun dañoo judd fekk fii Sénégal championnat football bi neex lool jaraaf ji mel ni tulleeg màlli jamonoy essai yi ñu daan toog dimanche. sama xel mu ngi dem sama maam. daan toog dimanche. laa yow naan aloo Balla Baas mu naan ko allo laay yàlla na na ko yàlla yërëm ak ñeneen sanu baay ba Abdoulaye Ly ah ak ñeneen ak ñeneen Umar Diak Jérôme ak keneen ak keneen Diouf ak ñeneen ñu doon xale màgg si loolu di leen dégg laay yow naan Karim Sey yàlla na ko yàlla yërëm Karim Sey. ngandam avant centre ICB mu joon di football Gabon yàlla na ko yàlla yërëm ak ñeneen. Cheikh Tidiane Fall Umar Gueye Sène Cheikh Seck Cheikh Tidiane Seck sunu kilifa boobu grand maa ngi laa nuyu bu baax kilifa bi. amiin Seck ah, ña mbokk bari ñi boobu bëgg lool maam Khalifa Ababacar si. Mhm. Cheikh Ahmed Tidiane Seck kaka bëgg naa da nga ko naan maam Khalifa Ababacar kilifa bi ñu ngi laa nuyu di la ziar dégg wax bi ak yeneen i kilifa. Mhm. cër na yum ñoom comme sunu xarita bopp la sunu mag